coowal élection présidentielle yi ñu dëgmal ci atum 2024 ak biir parti bi di alliance des forces de progrès ki ko jiite nag bëgg na ay jege jegeñaalam fexe def ab benn say ngir bañ a xaajaloo loole nag kii di Moustapha Niass di fàttale ne waxi candidat jotagul di doon sa li waroo ak règlement yi ñu tëral te di doon pas-pasu coalition benn Bokk Yaakaar bi AFP bokk dolli ne itam di leen ñaax ci ñu déglu lii di congrès bi di dogal ci ki mu bëgg mu doon seen candidat ci élection yi di ñëw Moustapha Niass mu ngi ko xamle ci ab benn ndaje waxtaan bi mouvement national des femmes dal di amal moom sax daal dina fësal ni AFP mu ngi li kollëreem ci wetu nguur gi parti bi nag mu ngi bi ci li gën a fës ci waxtaan yi ñuy amal ngir fësal itam moom taxawaay gi mu am ñu jàpp na ci coalition benn Bokk Yaakaar nag benn candidature niki tey fësaluñ ko fa ci lu officiel ci élection présidentielle yi ñu dëgmal ci atum 2024. gannaaw bi ñu coupé signalam ci diiru juróom-ñaari fan loole rek doy na seede ngir groupe Walfadjri fexe nag taxaw temb ngir xeex noot gi mu jàpp ne lañ ko def yóbbu ko ci kanamu yoon. loole nag mu ngi ko fësal ci ab benn bataaxal bi mu bind ni day jébbal ñaari plainte. bu njëkk bi mu fa tuumal kii di Babacar Diagne di nakarlu dogal yi muy jël ñaareel bi nag jublu ci ñuy bëgg fexe jóg ngir attaqué groupe bi di Walfadjri ñoom nag bëgg nañ rekk kii di njiitalu conseil national de régulation de l'audiovisuel mu daal di tekki ndombal tànkam ndax dogal yi mu jël jëmale ko ci télé bi di Walf TV daal di koy couper ngir aaye ko mu def liggéeyam ci bi ñu amale rassemblement bi ñu weesu ajuma bi fële ca Mbàkke Walfadjri nag fexe na amal ci semaine bi ay doxub ñaxtu li ci mel ni ñaari sitin ajuma jàpp gaaw ci barab yi di groupe bi ak ca CNRA ñoom nag noppee gu ñu benn yoon ci di naqarlu li ñu mel moo tax ñu woote tiber bi ci ab benn rassemblement bu mag a mag ñu fas yéene ko amal fële ci place de l'indépendance Mbàkke ak la fa xewoon fan yi ñu weesu ci jàpp ji ñu jàppoon ay ndaw ñu fa doon amal doxub ñaxtu am na li ci yees ci ñu jàppoon tolloon ci juróom fukk ak juróom ñetti ndaw képp lañu bàyyi bokkoon ci ñi takkader yi jàppoon aljuma ji ñu weesu juróom fukk ak juróom benn yi des ñu jàppoon leen ci diggante Touba ak dina ñu janoog procureur bi nekk ci tribunal bu grande instance bu Diourbel ci bu ñu amalee ba noppi retour de parquet démb bokk ci ab dox ñaxtu bu ñu daal di aaye indil jafe-jafe nekkinu askan wu Mbacké ak def ay ñawteef càcc wi ak yinu mel moom lañ leen di toppee ndaw yi lay bootu ci njiitalu Pastef di Ousmane Sonko fexe nañu ba jéggi li préfet biir dëkk boobe aaye woon ñu ko fay dal di amal ginnaaw bi ñu bindee ab bataaxal ba noppi Mbacké amoon na ay jàmmarloo yu metti diggante ndaw yi athlétisme ci àddina wërngal këpp ngi métit lu tey génnub àddina kii di Ken Ndoye ci bi mu amee ñeent fukki at ak ñeent moom nag doonoon na kàngam ci wàll woowee ci ndorteelu carrière am jëloon na médaille door ci triple saut ci atum 1996 ci championnat d'Afrique d'athlétisme yi xewoon Yaoundé ca Cameroun. ci atum 1998 nag championnat bi ñi daal di amal fii ci Ndakaaru moom kenn doy nag daal di nay ràññitliku bu baax a baax. ci bi mu jëlee médaille d'argent ci saut en longueur ak benn bu médaille de bronze ci triple saut ci Afrique nag mu fësaloon taxawaayam bu baax a baax ci athlétisme ci bi mu nekkee ñaari yoon championne d'Afrique ci atum 2000 ca Algérie ak 2004 ca Brazzaville ay compétition wu athlétisme mondial yitam mu jël fa ay raaya yu mag a mag te am solo lool boole kook ak xarañte bu doy loolee mu ñuy fàttali championnat mondial d'athlétisme on salle ca Birmingham ci atum 2003 jeux olympiques yu Athènes ci atum 2004 mu fa jëloon juróom benneelu place bi mu jëlaat ko ci at bi ci topp ci championnat du monde ca Paris ak bu Helsinki ci atum 2005 jeux africains yu Maputo ci atum 2011 nekkoon compétition bu mujj bi mu daal di amal foofu nag mu fa jëloon ñaareelu place bi ci jongante triple saut yi kii di Ken Ndoye nag daal di ñàkk bakkanam ginnaaw bi mu amee ab tawat lu yàgg ci at yi ñu weesu. rose noir ni ko bi nga xamante ne bëgg nañu ko lool bésub tey jilee loolu lépp ngir célébrer lii di fête des amoureux di Saint-Valentin. non mën nañ ne dafa tombe nag ndax tey dama amoon accueil nouveau bachelier après gis nga ma xëy rek sol euh, mooy suñ euh, identité bi nga xamante moom nañu ñuy accueillir nouveau bachelier yi léegi far mu tombé quoi. ñenn ñi jàpp ni kat. tey jii xalaatuñu sax dem kër ga te yóbbaalewuñu benn cadeau. Ah, waaw tey 14 février bi rek waaw jënd benn fleur rek yóbbul ko sama jabar sama soxna yaay Cheikh ah oui. Uh-huh. bon célibataires yi daal leen laa leen di wax ngeen góorgóorlu takk waaw xale yi ñu ngi fi pour yéen takk leen xale yi te jigéen yi aussi ngeen muñal góor yi waaw parce que dara dara matul waaw jamono bi moom metti waaw ku nekk daal jàppale sa góor waaw am na proverbe buy wax naan góor yi fan la ñu rawante si jabar yi donc lépp jigéen ñi la waaw jigéen ñi yéen a yor lépp waaw yéen a mën a jàppale seen ay jëkkër yéen a mën a jàppale seen ay góor ñun seen ay càmmiñ lañ ah waaw ngeen teg ñu loxo rek ñu dem. waaw ci non ci wàllu mbëggeel moom moom souvenir yi bëri na. parce que taxaw na ma fépp waaw. jaaykati fleur yi ba bésub euh, tey jile ñoom itam ñu ngi am lu ñu suturloo bu baax a baax. client yaa ngi ñëw tuuti tuuti rek. rose vrai yi. marché cher na tuuti rek parce que ay importe la. phénomène appartement yi daanaka nekk na jafe-jafe ci couple yi tam tax na ñi lancé appel ci parent yi ngir mu mën a conscientiser ndaw ñi li ah genre couple yi pour man loolu ñàkk xamante bi la rek lu moo tax couple di teel a tas parce que nit ko boo nekkee moom war nga war nga ko cooytu bu baax xam jikkoom avant ngay dugg ci moom soo ko deful rek boo leen tamit tamit tôt ou tard la wàll phase cachée waaw mu ngi noonu sa yi dee teel a yàqu waaw loolu tam mu ngi si ndax da ngay gis koo xam te ne day takk takk jabar jabaram influencé ko ba mu dem jël AP ñoom ñaanke suñu nekk si du coup dañu am ku leen di conseil yooyu noonu te suñu xale dafa laaj mag nekk si Saint-Valentin nekkoon évêque de Terni fële ci Italie ñu daal di koy dippee patron des amoureux et des fiancés ndaxte célébré woon na mariage yu bëri Saint-Valentin ci at bu nekk ñi daal di koy célébrer le 14 février